جلي شي سانغو سانغي موي سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سي وات نيو اك يين تي سوني تفسير القران بي نيو باخو دفي تي زاويه مام شيخ الحاج عمر الفوتيو رضي الله تعالى عنه وارضى عنا به امين ان ننتكو مبوكي طالبي مبوكي جولي waaye àndante ko waa Safina TV ñu ñuy wéttali saa su ne ngir jël tafsir bi tasaare ko ci àdduna bi yëpp yal na yàlla fayal ñu leen wal na yàlla waaye yal na yàlla fayal ñu ki nga xam ni liggéey boobu yëpp moo ko def mooy Thierno Hamidou bu Thierno Mouhamadul Bachirou Tall yal na yàlla taxawu ko kàttanal ko ba lépp li mu bëgg yàlla defal ko ko ci barke sëriñam bu tedd bi Thierno Hamdul Bachiru Taal ak mboolem jullit yépp tey ñu ngi firi suuratu naaziaat saar la woo xam ni wax nañ ni màkka la wàcce moom saar wi am na ñu ni aaya ci mujj na war a la wàcce waaye muy saar woo xam ni yàlla subhanahu wa def ci giñ juróomi yàlla su ma nee giñ mooy waat juróomi waat li yàlla di waat ci saaru wi yépp benn bis rekk la bëgg nit ñi bàyyi ko xel muy bisu yowmal qiyam. mis bi bis bo xamni mi ngi ñew ci sunu kanam yalla di ñu jajj nak pour bis bobu ñun ñëpp ñu bayyi xel bis bi ni ñi muy gën di wat ci ñom moy yefeer yi nga xamni ni ñi ngi wax ni dekk amul yowmal qiyam amul ku dee rek dee nga sa dundu jeexna waaye kenn du dund dee ñu gas bu mu xóot dugal li ci biir suuf di la dekkelaat yàlla ni leen dekki am na te képp koo xam ne weddi nga ko bis yi ni ñëw ma dekkal la ci loo xam ni du mat xef ak xippi loolu la saar wi di jàngale soo demee ba ci biir saar wi saar wi dana la jàngal kàttanu yàlla ci guddi ak ci bëccëg ni muy jekke ba yàgg rek bëccëg bi ñëw nga jekk ba yàgg guddi ñëw te bu guddi dee dem doo gis muy dem bu bëccëg dee ñëw doo gis muy ñëw mu ni ki def loolu kay xam nga ni su lee mën naa dekkal ku dee mën na ko dana la jox tamit misaal ci suuf si ni ko yàlla bindee te bind bu yéeme la ndax yàlla wane kàttanam moo tax balaa muy bind suuf si asamaan si la njëkk a bind moom yàlla subhanahu wa taala bind na asamaan diir bu yàgg ci bindul suuf ndax da doon bañ njëkk a bind suuf bind asamaan sa xel xalaat ni yàlla bi muy bind asamaan daa taxaw ci kaw suuf moo tax mu mujj bind suuf njëkk bind asamaan ba nopp wan la kàttanam ba tey bi mu bindee asamaan ba noppi bindul suuf kaaba gi la bind balaa muy bind suuf kaaba gii ñuy wër yàlla bind na ko junni at te bindagul suuf xanaa di ma wax fu kaaba gi nekkoon booba ñu ngi ko teg ci kaw ndox pour wane kàttanam junni at mu bind kaabatul musharraf ba tax Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu daana wax eh, ñii dem màkka mu ni ñaari kaaba moo am bu ñuy tawaaf su ko mag ñi ne ban ak ban Maodo mu ni kaaba gi nu tabax gi nga gis mooy muul yi bi ngay wër bu ñuul bi mu ni ak kaaba gi nga xam ni dañ koy tawaaf te kenn du ko gis booba ma ngay junju tomb ba jóge woon ci xaqiqatul muhammadiya ni toq foofu tax yàlla ni malaaka yi tabaxal leen ma fii pour ormal tomb ba jóge ci xaqiqatul muhammadiya malaaka yi tabax tabaxu malaaka ya diir ndox ñëw naawal ko toj ko ndax kaaba gi tabax nañ ko lu mat ñeenti yoon malaaka yëkk njëkk tabax biñ ko tabaxee néeg ba nekk fa jëkk ba yàgg ndox ñëw daal di koy màbb ak ngelaw bi ñu ko màbbee jël kaaba gi tabax boobu malaaka yi tabaxoon ñu tasaare ko ci àdduna bi yépp moo tax fépp foo xam ni zaawi yaa nga fa comme fii wala jàkk fii ñu toog nii di tafsir alquran yëgal ni bi kaaba gi daanoo yàlla yabal ngelaw ngelaw loolu naawal xeer ya aw xeer daanu na fii fu xeer dal ci àdduna bi rek balaa àdduna tukki foofu daañ fa tabax jàkka wala ñu def fa jumaa wala ñu def fa zaawiya kon kii néeg bii ñu toog dafa bokk ci néegi yàlla yi yi nga xam ne ñu ngi soqe ko ca kaaba gi borom xam-xam yi waxe ni bant ya fépp fo xamni tàntal nañ fa yonent bi alayhi salatu wassalam rek ci kaw suuf bant na won na dal fa ndax xaqiqatul muhammadiyya mo jur kaaba gi kaaba googu nag yàlla wax adama mu tabax malaaka yi ñu tabax ko gannaaw malaaka yi mu wax adama gannaaw adama mu ni maam ibrahima alayhi salatu wassalam gannaaw wa gannaaw maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam waa quraysh beesalaat ko ci seen besal bu yéeme ba kon loolu itam yàlla dana ko wane kàttanam ci biir saar wi waaye tamit dana la nettali histoire ñu ragal yàlla moom lay tëjee mooy fami ca fa muy wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naa nafsa anil hawa kooku mu fassiruna yi ñii dañoo wax ni abou bakrin siddiq moo tax mu wàcc lu tax Abubakar Siddiq tax mu wàcc Babacar dafa amoon jaam benn jaam bi mu amee jaam bi Babacar ku baax la woon ku laa biir mu ni jaam bi duma la teg lu bari bis boo xëyee rek dem liggéeyi li nga liggéey lépp dajale ko pour wut loo jotoo nekk as waaye li ngay li ma lay sas rek par bis mooy bis bu nekk rek jëndal ma lu ma lekk te xam nga ni Babacar li muy lekk barewul ndax dafa roy yonent bi alayhi salaatu waaye comme jaam bi ab yéeféer la su demee liggéeyi su ñëwee su joxee Babacar Babacar daf koy laaj foo ko jële su ko nee damaa yanu ñu fay ma baaba ma jëndal la Babacar lekk su ko nee dama bayal nit ci toolam wala dama ko wattal ay tàndarma wala dama sàmmal nit Babacar lekk xam ne loolu lu lew la lu dagan la waaye su ko nee ca carte ga laa ko jële wala nit laa defaral sàngara wala nit laa defaral loo xam ne dafa xaraam su ko ko waxee Babacar du lekk bis nag jot Babacar jaam bi ñëw indil ko lu mu lekk Babacar fàtte nit jàpp ko ba mu fàtte lan la fàtte fàtte ne koo laaj foo ko jële Babacar lekk bi mu lekkee ba noppi rek jaam bi ñëw ni ko yow de tey laajoo ma li ma la indil fu ma ko jële Baabakar ni bëri toog ne ko dama ko fàtte foo ko jële mu ko ca carte ga laa dem kart dàq ba ma dàqee ma dem jëndal la lool lekk Baabakar daal di jóg jël loxoom bu tedd ba dugal ci biir gémmiñ ga ba mu romb làmmiñ wu ndaw di waccu di waccu di waccu ba wàcc li mu lekkoon lépp bi mu wàccee li mu lekkoon lépp mu ni yàlla lii day laa mën a génnee li ci des nag yaa ko téye ci dara ji ak si dit gi aaya bi ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naa nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa babacar a tax ñu ni déedéet Musab ibnu Umayrin a tax ci moom la wàcc ñu ni Musab ibnu Umayrin moo nekkoon sëriñu waa madinatul munawara pour nga xam ne sëriñ yàgg na fi ah te boobu yeneen yonent bi ngi dund ndax yeneen yonent bi dafa nekk Makka gàddaayagul ñëw madina mu yabal Mus'ab ibnu Umayrin mu jiitu ko Medina jàngal waa Medina alquran ak diine waa Medina fonk ko bëgg ko ndax mooy seen sëriñ yàlla dogal ñu dem xare rakki Mus'ab ibnu Umayrin di Urwata bokk ca xare ba ci yéeféer yi bi mu demee ànd ak yéeféer yi jullit ñi jàpp ko comme bu nu jàppee yéeféer bu nu ñëwee dañ koy yeew wut fu ñu ko tëj bi mu ñëwee te balaa ñu lay yeew tëj la dañ lay laaj noo tudd nga joxe sa tur sa ndey sa baay ñu bind soogaam lay yeew tëj bi urwata ñëwee ñu ne ko noo tudd mu ni man maay urwata man maay rakku musab ibnu umayrin ñu ni musab ibnu umayrin ñu ni waaw waa madina ci jullit ñi ci seen baax te seen xol yu set ya te laa ñu ni kii duñ ko yeew lu tax duñ ko yeew kii suñu rakki sëriñ la comme suñu rakk sëriñ la kenn du ko yeew non seulement duñ ko yeew mais aussi duñ ko tëj fi ñuy tëj prisonnier de guerre yi ñu nu jàpp kenn du ko tëj foofu jël ko ca seen mbaax yóbbu ko fa ñuy fanaan ñu tëdd ak moom foofu fanaanal ko fa ba bët ñu ànd ak moom nag ñëw ci musaab ñu ko kii sa rakk la dañ ko jàpp mu ne yenn a bokk ndey ak baay loolu tax yeewuñu ko loolu tax tëjuñu ko fa ñuy tëj prisonnier Musab ni leen bokk ma moom dara te rakkam la bokk ndey ak waaye comme duggul ci lislaam rek nangootu bokk ak moom dara mu ni bokk ma moom dara su dee woon du ko donn su ma deewee duma ma donn te loolu sharia la kon yeewu leen ko tëj ko yaayam ku bari alal la mu joxe galak ngeen dugal ci alalu baytumaal bi jëndey fas jëndey ngànnaay ak mbubbi koŋ yàlla ni xolal ki rakam ji mu bok ak mom ndey ak bay ak jaritam ji ma gënal ko ko bam ni nañ ko yeew ko wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna jannata hiya al mawa ni ci muzab ibn umayr ci la wàcc kon non la sar wi ñi bëgg firi ëmb ci ay xissa yo xamni ni gi dana yok julit pass pass yok nettali gi dana yok julit bëgg yonent bi ak bëgg saxaaba ya nettali gi dana tax jullit gën góor góorlu xam ni dara nekku fi yàlla rek subhanahu wa moo fi nekk saar woo lañuy la ñuy firi muy suratu naziaat buur nee na wa naziaat yi giñ nee na maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ni ñooy rocci ruu yéeféer yi xarxan ak rocc mooy bif an nazu dafay firi bif maanaam xëcc gu metti dafa bëgg ñu wax yéeféer buy dee dee gu metti lay dee la malaaka yi di génnee ruuxam moo tax yàlla ni wa naziaati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy rocci ruuwu yi ak rocc gu metti wa maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ni ñooy nocci ruuxu ji yàlla nashtan ak nocc gu woyof jullit ruuxam ni mu mel ci yaramam suy faatu dafay mel ni raccantal ak nastu dafay firi raccantal te xam nga raccantal booy xëcc rek mu lay topp ndànk moo tax mu ni jullit ruuxam buy génn ci yaramam dafay mel ne raccantal boo def rek di ko rocc ndànk ni muy facile pour mu dem nee na noonu lay yombe بودي نتي مفسرون ني داني واخني جولت بي فاتو يالا داي جيل بن خوب تي خوبي الجنيا تاكو تي بن مباجو تي مباجو الجنيا جوخ كو ملائكه سو ملائكه نيوي نك جيل مباجو مومو تاكو تي واتو كي واجو فاتو موم نيو بي جيل فلير بوبو nga xamni mom lañu jëlé aljana diko ko timalé mu koy xol xulli bëdd diko xol xet gi neex lool di ko xeeñ daq xet gu ko mës a xeeñ ci àdduna xet googu moo koy dàqal keroog ni muy bannamti koo xet gi nag di ko noyyi comme lu neex loo bëgg su lay xeeñ te gisoo ko ngay ubbi sa nopp di ko di ko di ko noyyi bu baax noonu nag jullit bi di noyyee fleur boobu ñu jëlee aljana noonu la malaaka yi di def ndànk di naxanteeg moom ndànk ba rocc ndànk ruux bu nu roccee ruu gi nag dañ koy jël teg ko ci kaw fleur boobu jóge aljana daal di jël mbàjj mi teg ci malaaka yi nag daal di jóg ak ruux gi ñu nga jëm kaw asamaan di xotti ñu nga jëma ruu gi ala illiyiina ndax ruu jul ñëpp foofu la ñuy dem bu ñuy yëkkati ruu gi di dem nag bu ñu rombee asamaanu benneel ñu nekkoon asamaanu benneel ñëpp jóg taxaw di wax ni marhaban bibni saalih ñu ngi wax yegsil ak jàmm ak jàmm ak salaam ci nit ku baax kii nga xam ni moo yegsi ndax xet gi moo leen di neex noonu lay def asamaan bu mu romb xet ga di leen xeeñ mu neex ñoom ñëpp di ko ñaanal ruuga di yéeg ba àgg alaa iliyina su demee iliyina nag fa la ñuy jël ruux ga daal di ko fay teg ba ëllëg yowm alqiyaamati ñooñu nag lay wax seen ruux gi ni ko malaaka yi di roccee ak malaaka yi bu ñuy ñëw di rocc ruwu jullit ñu ngi ciy saware ak mbégte mi ñuy àndal ak ñeewante bi ñuy àndal yàlla tamit mu ngay giñ ci malaaka yooyu mu ni naa shitaati maa ngi ci malaaka yi nga xam ne ñooy rocci ruuxu ñu gën yàlla nashtan ak rocc bu nee na wa saabixaati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy sabbal yàlla ci kaw asamaan si sabxan ak sabbal asamaanu benneel ba asamaanu juróom-ñaar ba sidratul muntaha lépp ay malaaka la te malaaka boo gis ñii ñi ngi sàppe ñii ñi ngi rukon ñii ñi ngi siggi ñii ñi ngi sujjóot ñii ñi ngi toog mel na kuy taaya loolu sax moo ñu may julli ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba muy def isra wal mi'raj romb malaaka yi ñuy jaamoo nooy yàlla loolu neex ko mu dem yàlla jox ko julli dugal mbooleem li malaaka yi doon jaamoo ci kaw mu defal ko ko ci ju malaaka yooyu nag sëgg di sàbbal yàlla te duñu bàyyi sàbbal bi bu mukk lu dul yowmal qiyaam dafa taxaw ñooñu yàlla nee na maa ngi giñ ci seen mbir moo tax mu ne wasaabixaati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy sàbbal yàlla ci asamaan si sabxan ak sàbbal am na mu fassiru na yoo xam ne ñu ngi koy firee wasaabixaati yàlla nee na maa ngi giñ ci malaaka yi féey ci leeri yàlla yi sabxan ak féey di wàccee wax ak mbiru yàlla buur nee na maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ni ñooy njëkkalante pour ëllëg yowmal qiyaam ñu jël jullit ñi gàddu leen yóbbu aljana sab xan ak njëkkalante gis nga jullit ñi bu ëllëgee su ñu war a dem aljana malaaka yi ñoo leen di njëkkalante di leen yóbbu aljana dégg samaam alaaji malik radiallahu taala anhu mu ni ah jullit ñi de ñuy julli di woor natt azaka rawatina ñi nga xam ni ñu ngi zikkar salaatu ala nabi rawatina muy salaatul fatihi mu ni ëllëg yowm alqiyaama bu ñu dekkee jawaasuhum kawaili lmalaiki ala siraati minnatan lilmamalik cheikh alhaaji malik ne te waxu cheikh tidiane la nettali cheikh tidiane waxu yonent bi salallahu alayhi wa sallam la nettali te yonent bi yàlla nee na lu mu wax maa ko wax mu ni jawaasuhum jéggi ñooñu ma la wax kawa ilil malaayiki ci joggare yi malaaka yi fii la ñuy toog rek malaaka yi naaw ak ñoom ñu leen siraata ngoog wàccee leen biir aljanna yal nañ ci yàlla boole ak ñu ñuy seetaan ñëpp moo tax bu ne fa saabiraati maa ngi waat ci malaaka yi nga xam ni ñooy njëkklante ruu jullit ñi pour yóbbu leen àjjana sabaran a njëkkalante fal mu dabbiraati yàlla nee na maa ngi waat ci malaaka yi nga xam ni ñooy fuglu ñoom laa dénk mbiru àdduna bi yëpp am ran ak fuglu fal mudabbiraati maa ngi giñ ci malaaka yi nga xam ne ñooy fuglu amran mbiru àdduna bi yëpp ñooñu ñeent lañu mooy jibril mikail asrafil azrail li àdduna àdduna bi di rëy rëy ñeenti malaaka yi kese la yàlla dénk ñii rek la ko dénk mooy seydina jibril alayhi salaatu wassalaam ak asrafil ak mikail ak asrail yàlla ne ñoom te maa ngi giñ ci ñoom yàlla giñ na ci juróomi kooru malaayika yu bokk juróom la giñ lan la yàlla di giñ maa ngi koy wax buur ne yow ma bis ba nga xam ni tërjufu dana rëng-rëngi arraajifatu rëng-rëngi ga ma yomal xiyam da ngay jekk bu yàgg rek suuf si mab lépp mab montagne yi mab lépp dara dootu fi nekk wa tara jibaala taxsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra saxaabi da ngay jekk bu yàgg rek seen montagne yi ñuy dox comme niir wuy dox ñoom montagne yi lépp nekk habaan mansuran poussière nee na te loolu asraafil mooy walwal gu njëkk ga lu nekkoon ci kaw suuf daal di dee bu lépp deewee lépp nekk ci biir suuf ñeent fukki junni at yàlla nekk fi di wax benn baat xam nga li muy wax li manil mulkul yawma ana kan moom moom nguur tey loolu lay wax quarante mille ans ci ati àllaaxira ya nag ndax boobu àdduna amatul léegi àllaaxira commencé na mu toog ñeent fukki junni at ci ñeen fukki jinni at yoy nga xamni yàlla waxon ne benn bisu yowmal khiyam moy 50000 mille ans aduna wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'duna seen janvier février ba décembre 50000 mille ans wam mooy benn bis ci yowmal khiyam yàlla tok fa nag ñeen fukki jinni at di wax benn baat day laaj te de mom yàlla li ma mulku mulkul yawma ana kan mom mom ngur tay ñëpp ni tek kenn du wax yàlla rek ba yag mu xamni da fi yag rek way kenn du ko tontu ndax lu koy tontu amatu fi ku koy tontu amatu fi mu tontu bopam ni lillahi wahidil qahar ah gàcce ngalama neexul ba neexul ki mom nguur kenn la moy ki not jam yep tay ray len ñep tëdd mu tok fi ñeen fukki junni at di laaj ana kan mom mom nguur kenn wewul kooku rek mom mom nguur legi nak su waxe ñeen fukki junni at mu dekkal Azrafil su dekkalee asrafil ni ko walaatal gaa yi dekki mooy ni tatba'uhaa dana ko topp arraadifatu walu ñaareel ga gannaaw ñeen fukki junniy at mu walaat su walee ba pare rek moom asrafil xam nga lu muy wax day wal nga gi su ko walee rek daal ni eh yéen yàpp yu fënax yi eh yéen yax yi eh yàpp yu ñàppatikoo yi ee yéen karaw yi teqalikook seen jëmm ya jóg leen ngeen wuy ji seen borom su ko waxee lenn lu nekk cër bu nekk dafay dem fekki moroomu cëram lépp daal di àndandowaat jëmm ji daal di génn daal di taxaw léegi nag taxawaay yowmal xiyaam ñëw na mu ni keroog nag taxawaay boobu amee da nga gis xulóobun ay xol yow ma isin keroog waa jifatun ñu tiit lañu nga gis keroog ñu tiit absaaruha seen bët ya خاشعه نينكو بوخي نيغا خوليكو غير تيت باسكو خامن لي فيني جوم باخول ناخ لي ندون ديف باخو نيوم نيو ني دي يفير يقولون نياغي واخ يال في الحافره ndax kenn du ñu delloowaat àdduna waay gannaaw bi ñu deewee ba nekk yax yu fënax ñoom yéeféer yi ñooy ñaan loolu pour dellu léegi ñoom ñoo ko ñaan waaye ñooy waxaat seen bopp dégg ñoo waxaat xaaloo ñoom yéeféer yi ña nga naan tilka delluwaat sax ci àdduna isan même su fekkee am na karratun dellu googu xaasiratun perte la même suñ delluwaatoon àdduna sax perte nañ ba pare ndax gàcce am na ñu yàlla santoon defuñu ko te sax yàlla ne yéen a koy wax rek waaye xam ngeen du ngeen dellu da ngeen di dem waaye dootu leen wàññeeku xam ngeen yàlla ne bi ñuy wax loo rek fa idahum ndeke ñoom mbindeef yëpp bi zahirati ñañ ca kaw suuf a zahira day firi suuf su weex waaye a zahira day firi kaw suuf lu tax mu ne a zahira ëllëg yowmal xiyaam suuf si ñu doon mooy yàlla yàlla def ko fiy jële moom lay wax ni wa samawaatu madwiyatun bi yaminihi wal ardu xabdatuhu nee na bu ëllëgee yomal xiyaam suuf si def ko fi jële indi beneen suuf bu weex suuf bu weex boobu nag mooy zahira boobu nag ci lay àttee jaam yi mu ni suuf si fi nekkoon anamu mu ni wal ardu xabdatuhu suuf si fi nekkoon yàlla moo ko ŋëpp Serigne Cheikh ne dama laaj Serigne Babacar si رضي الله تعالى عنه نكو الارض خبطته يالا ني الا يوم الخيام سوسي نمو تولو داف كاي نوب مو نوم كاي نيبي باي ني سيغ بابا كان نيكو نوبي خام كو دوزا فاراتا گم ني من نكو موي سفاراتا گمل ني من نكو لولو موي سفاراتا واي نوم كاي نيبي سيغ بابا كان سيرين شيخ نينا سيرين شيخ نينا سيغ بابا كان نيكو نو يالا دي نيبي سوسي خام كو دوزا فاراتا لي سفاراتا موي گم ني من نكو لولو موي سفاراتا دمني رقمنا كلنا ما سفرت فإذا فإن فإذا هم بظاهرتي دك يوم يب نيجي تكاو سوسا يلا دكال لين نيجي تكاو سوسا لكن يلا نيجي وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم pour mu wax ak yéeféeri waa màkk ndax dafa amoon ku leen ëppoon doole gën leen saay saay gën leen mënoon mooy yàlla yàlla alak ko mooy firawna moo tax mu ni hal attaque ndax dikkalu la yow yonent bi xamoo xadisu Moussa histoire yonent yàlla Moussa is naa daawu jamono ba nga xamee ni woo na ko rabbo boroomam bil waadi ci xurwa almuxaddasi xurwa wu nga xam ni dafa sell tuwan xurwa tuwaalu tudd yàlla ni Moussa izab demal ilaa firawna nga jëm ci firawna innahu naka moom firawna taxa bew na taxa buñ ko waxe rek moy ko xamni dafa dafa gi dayo ci moy yalla loolu moy taxa ibnu abbas nak bimu koy firi neena kep ko xamni xam ne dajale nga ñetti ñam yu bokul ci sa kanam yu ñu togg ñetti ñam yu ñu togg ci sa kanam pour lek ci ñetti ñam yépp mu ni dugg nga ci mbewte yalla dafa kullu washrabu wala tusrifu kon mu ni ila firaun izhab jamal yow musa ila firawna nga jëm ci firawna innahu naka moom firawna taxa beew na fuqul waxal halaka ndax duma la woo ñeel la ila anta zakka ma jëmale la nga sell ma laabal la pour nga seede ni yàlla kenn la nga bàyyi bokkaale yàlla nga wax laa ilaha illallah wa ahdiyaka ma jubal la ila rabbika nga jëm ci sa boroom mooy maarifatu billahi yi nga xam yàlla wa ahdiyaka ila rabbika mooy ma jubal la ba nga xam kàttanu yàlla nga xam yàlla su ko defee fa taxsha nga ragal yàlla nga bàyyi jaam yi ñu jaamu yàlla buur nee na fa araaw wan na ko kan moo wane Moussa wan na kan Firawna laayatal kubra aaya yu màgg ya la ko wan Moussa amoon na juróom-ñeenti kawteef bi mu ko ko wanee yontu yàlla Moussa loolu taxul mu gëm buur ne fa kazzaba Ah, yonti eh, na taxul mu gëm yonti yàlla Muusa boor ne fa kazzaba na weddina Muusa wa aza mooy ne ndigalal yàlla boroomam su ma adbara mu wan leen gannaaw bañ leen gëm yasaa ma ngay dox ci suufu misra di yàq fa xashara mu dajale njabarkat yépp su la neexee nga wax loolu bi Muusa sànni yat wi su la neexee nga ni fa xashara itam mu dajale soldaar sa pour ñu jaamaarloog Muusa fanaadaa mu woo ñoom ñëpp ñu ñëw bi ñu ñëwee mu daal di fanaadaa mu woote wax ca kaw ñëpp dégg ko ni tekk di ko déglu fa qaala mu daal di wax moom firawna ana man firawna rabbukum maay seen boroom al ala bu di aji kawe yàlla ne ba mu waxee loolu fa axazahu yàlla jàpp na ko ca wax ja bi mu waxee ana rabbukum al fa axazahu yàlla alag na ko moy bi mu waxe ana rabbukumul aala rek lolo tax yàlla labal ko waxna la bakkar soko ko ñaari mbugal ngay am mom dafa waxoon ni dafa ñëk wax ni maa alimtu lakum min ilahin ghayri yéen xamaluma len benen yàlla budul man lolo la ñëk wax mu demaat ba ci yag mu ni ana rabbukumul aala wax gi mu wax nak ana rabbukum al a'la lolou moy mbugal mi tax yàlla labal ko ci bahru khalsum wax gi mu wax nak ma alimtu min ilahin xayri xamaluma len ben yàlla budul man moy tax ëllëg yowmal qiyam yàlla yóbbu ko safara motax fa qala waxna na ana man rabbukum may seen borom al a'la ba kawe fa axasahu fa axasahu allah yàlla jàppal na ku mbugal ci wax jooju moy label ko ca bahru khalsum te ëllëg yowmal qiyam yàlla danako defal nak al akhirati mbugalum al akhira moy ñaarel mbugal ma danako am wal ula ak mbugal mi mu njëkkoon mi ko njëkkoon defal te moy label ko ca bahru khalsum buur in fi zalika nak nak na ci li ma wax ci iswaru musa Firawna la ibratan akwar liman li ko xamni koo xam yaxsha dafa ragal yàlla de buur ne naa antum ndax yéen waa màkka walla yéen ñiy weddi dekki la yàlla di waxal mu ne antum ndax yéen ñiy weddi dekki waa màkka ak ba tey sam ku weddi rek ci nga bokk antum ndax yéen yéeféer yooyu jamonoonte woon ak yonent bi wala antum wala yéen yéeféer yi 2020 yi yéen a gën a metti xalxan ci bind ami sama wala asamaan bind leen ak bind asamaan bu gën a jafe bind asamaan a gën a jafe asamaan banaaha yàlla moo ko tabax rafaa yàlla moo yëkkati samkaha téeg bi mooy toiture bi samkul mi firi ci arab mooy puj puj mooy ñu ñu dëkkee kaw ga rimbax néegi ñax ya bu ñu ko defaree ba pare loolu ni coll ci kaw loolu mooy puj mu ne asamaan noonu noonu mu yëkkati yàlla moo ko yëkkati mu ne rafaa yàlla moo yëkkati samkaha pujam ba fa sawa mu yamale ko asamaan bi mu asamaan ak léegi doo gis fenn fu bët doo gis fenn fu xotteeku loolu yow man xiyaam rek lay am ba tax ci jamono yi le passé dama gis benn vidéo ñu naan kowet la asamaan see doon wàcc ma dégg ñu naan asamaan see ngi wàcc laa ilaaha illallaah àdduna bay dëgg tukki ma ni asamaan bis buy wàcc du ngeen de <laughs> bis hm? bu asamaan si dee cëppeelu di wàcc kenn du vidéo di nga tal leneen lu dul moo tax mu ne rafaa yàlla moo yëkkati samkaa teegu asamaan mooy tuwaatir bi fa sawaa mu yemale ko wa axtasha yàlla muur laylaa guddeem nga asamaan bu guddee yàlla moo koy lëndëmal wa axraja yàlla moo génnee duwaaha jantam ba yoor yoor ñëw loolu yëpp day wane kattanu yàlla yàlla ne gannaaw bi mu bindee asamaan ba noppi wal arda suuf si baada dalika gannaaw loolu daxaa yàlla tàllal ko de gis nga wane kàttanam waxoon naa la ko sànq dafa bind asamaan ba noppi soog am di bind suuf axraja yàlla génnee na minaa ci suuf maa aha ndoxam mu génnee ndox ci suuf wa mar aha ak sàmmuwaay bi maraxa mooy tool yi saxal garab yi nga xam ne nit ñi dañ koy lekk ak jur gi moo tax mu ni axraja génnee na ci kaw ci kaw suuf axraja génnee na mina ci mu génnee ci biir suuf ma aha ndoxam ma wa mar aha ak càmmuwaay ba dex yi ci kaw suuf déeg ci kaw suuf siyaan yi ci kaw suuf wa mar aha ak càmmuwaay ba wal jibaala gannaaw bi yàlla bindee suuf ba noppi wal jibaala montagne yi arsaha moom la dëgërale suuf moom la ko takkee montagne yi ñoo téye suuf si ba du ma bëx loolu yàlla moo ko waxal boppam wal jibaala montagne yi arsaha ñoom la yeewe suuf si ñoom la ko téye pour suuf si dal yàlla ne loolu maa ko def mataaxan muy xéewal lakum ñee leen yéen doomu aadama wali anaamikum ak seen jur yi pour ngeen ci mën a am fu ngeen dëkkee am fu ngeen bàyyee seen jur gi am fa mu sàmmoo waaye buur ne fa ida jaati su dikkee attaamatu mëdd ga alkubra ba di aji màbbu taama mooy lépp loo xam ne bu ñëwee lim fi fekkoon yëpp daf koy muur daf ko fiy jële te mooy yowmal qiyaam mu ni yow ma nga xam ni yutazakkaru dana fàttaliku al nit maasaa lu mu jëfoon ci lu baax ak lu bon yowmal xiyaam boo dekkee rek kenn ku nekk loo mës a def ci lu baax wala lu bon jarul sax ñu lay jox sa téere ci saa si lay ñëwaat sa xel lépp ngay fàttaliku bu ñu la joxee téere bi nag soo ko jàngee su dee jullit ñi dañuy kontaan ñoom la yàlla wax wa amaaman utiya kitaaboo bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran dañuy kontaan wa yanqalibu ila ahli masruran da ngay gis julit bu dem ñu jox ko téeréem buy wàññeeku kanam gaa nga leer ma nga bég ma nga kontaan ñëpp di ko ndokkale parce que aljana la jëm waaye da ngay gis yéeféer mu dem ñu jox ko téeréem mu tiit naan maa li hada alkitab laa yugaadiru saqiratan wala kabiratan illa ahsaa yàlla tontu ni wa wajadu maa amilu xadiran wala yaslimu rabbaka ahad yéeféer buñ ko joxee téere mu ne lan mooy téere bii nga xam ne bàyyiwul bàkkaar bu ndaw bàyyiwul bàkkaar bu mag lépp lu mu mas a def rek bind na ko yàlla ni wa wajadoo maa amiloo xaadiran yéen tey lépp lu ngeen ma sa def di ngeen ko fekk ci sen tere yi jëf yoyu motax mu ni yawma yatazakkaru bis ba nga xamni dana fatlikou al insan nit ma sa lépp lu mu jefon fi ci aduna mo xam lu bon la mo xam safan la wa burizati yàlla feñal al jahim safara wa jahim liman yara yaraa ñeel ñi koy gis yawmal qiyam même jullit ñi yàlla dana leen wan ñiy dem aljana dana leen wan safaraw jahim li tax mu leen koy wan day bëgg neexitu àddun àjjana gën a neex ci ñoom ndax soo demee aljana te gisoo safara da ko dégg rek déggoo riir mi gisoo ko àjjana dana neex waaye soo xamee ni fii laa waroon dugg dugg ma fa nga dugg fële ka dàq àjjana ji day gën a neex ci yow looloo tax yàlla di ko wan jullit ñi pour mu gën a neex motax mu ne wa burizati yalla wan al jahim wa jahim nga xamni da fay lakke liman yara ñeel ñi nga xamni ñu koy gis bor ne na fa amaman taqa kep ko xamni bewon nga moy weddi won nga yalla ci aduna wa athara nga gënalon al hayat dunya gëndu aduna bi nga top sa banex top aduna ba de fa inal jahim, khamal safara wa jahim yi mom al ma'wa moy sa way safaraw jeeyim fa ngay duggu al mawa limi firi ci arab moy fi ngay selo comme bu don taw fi ngay lal ba ndox dula la laal mawa nak buñ ko waxe moy lal xam buñ la fa duggalé lool rek mo lay laal dara dula laalati kon safara mo leen di wër kaw nday jor càmmoñ fep do tax mu indi batu mawa inal al jahima naka safaraw jeeyim ya al mawa moy sa tàppuwaay bàyyi na ñooñu mi ñi wax ñi ragal yalla nak ñoom ñoom ñep aljana lañ jëm yalla ci yalla boole buur ne wa amma man xaafa koo xam ni ragal na maqaama rabbihi taxaw gi mu war a taxaw ci kanamu borom ëllëg yowmal xiyam loolu rek moo ko tere nelaw de mu tere an nafsa bakkanam anil hawa ci bànneex yi nga xam ni yàlla bëgg ko tere na bakkanam sàngara tere na bakkanam lekk lu xaraam tere na bakkanam njaaloo tere na bakkanam jëw tere na bakkanam bokkaale yàlla loolu mooy anil hawa war na wa moo tax mu ne wa amma man xaafa koo xam ne ragal na maqaama rabbi taxaw gi muy taxaw ëllëg yowmal xiyaam ci kanamu borom tax war na nafsa mu aaya bakkanam mu pini bakkanam anil hawa ci mu topp bànneexam kooku fa innal jannata xamal ni àjjana hiya moom almawa mooy tàppuwaayam kooku suy dee rek di dem àjjana bàyyi na loolu mi ngi wax bis pénc aay bii nag mooy aaya bii nga xam ni ci wàllu bis pénc kañ lay teer fii la yonent bi mujjee wax ak yàlla ci waxu bis pénc yasalunaka yàlla daf ne ko yéeféeri màkka ñu lay laaj ani saati ci bis pénc ay yaana mursaa kañ lay ñëw kañ lay taxaw yàlla ni yonent bi fii ma anta ana lan yow min zikraha moo tax nga koy laaj lu tanga koy laaj affaire bi bu ko laajati ndax affaire bi boko laajet do xam bis penc kan la ila rabbika nek na ci sa borom muntaha xam bis penc kan la xamalu ko kenn anta xamal ni yow bi munzirun waaraate kan nga rek da ngay waare di wax mbiru bis penc ak yowmal qiyam da ngay war man yakhsha ku karagal waye waaye ñi la ñi la koy laaj ka annahum dana melni ki ñom yawma yarawna bis biñu gisé pénc bis pénc lam yelbaso dana melni ni saxuñu won ci aduna lam yelbaso dafa melni ni tëddunu won ci seen ben bameli illa ashiyatun ludul genn ngon aw duhaaha wala yor yor bu bis pénc ñewé bu nu dekkalee ab julit mom day xulo julit bi bu ñu ko ñi jógal bis pénc jot na ko azrafil waxe moom ni bërët day wax من من بعثنا في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا أنا كان موني يقل شنو نلاوي نيخي ني نيكون اك سن تراي بي غام غام تد ليغي رك ني يوار ما ليغي انا كون ما يي واخ افير بي داي غات سي موم وايي بو جوغي واخ لولو خول غيس ني بينچوم يالا مي تاخاو موم يفير بي موم جوليت بي مو تونت وات بوبام لان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لي دي لي يالا وخون اي يوننتي yàlla yónni woon ci ñun liñ daan wax kay dëgg la yegsi na wa sadaqal mursaloon nag kenn du ko firee li yonent yi daan wax dëgg la ndax yonent lu mu wax dëgg la da nga naan wa sadaqa yegsi na al mursaloona ñu nu yónni liñ doon wax yegsi na mooy tey bisu yowmal qiyaam moo tax mu ni que annahum dafa mel ni ki ñoom yow ma yaraw na ah bis ba nga xamee ni gis nañ bis penc dafa mel ni lam yalbasoo tëdduwuñ tëdduñu woon ci seen bàmmeel yi wala nga ni lam yalbasoo saxuñu woon ci àdduna bi ilaa ashiyatan lu dul genn ak نقول أو دعاء ولا بين يور يور صدق الله مولانا العظيم وبلغ الله المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ولنا ورزقنا من الشاهدين اللهم بلغ ما قالنا وبركنا ما تلونا من كتابك العزيز هدي الله عليه ورحمة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح جميع الأنبياء وسلم أن تعالى عليهم أجمعين أن نقي على دفي جو أخويا أنت صلى الله عليه وسلم أجل أنت صحابي suñu wéyjur juri gëm yàlla yëpp yàlla defal ñu suñu mbir defal mbir juri ñëpp jàngoro ji di wër aduna bi yàlla ko fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mo nekkon seen tafsirul quran tay fi ci zawiya mam cheikh alhaj omar al fouti radiallahu anhu andak ak seen mbokk daara al oustaz pa Makhtar Sylla ñu ngi leen di dig daje beneen yoon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh